Zos ak Alphas ak guy gi. boo xam nga guy gi baabu dafa am benn problème boo xam moom la nekkee moom mooy arène nationale benn arrangé wu ko. arène nationale arrangé wu ko pourquoi arrangé wul guy gi parce que guy gi ba ñu xamoon mooy guy gi boo xam ne dafa àttanoon yaram bi. Mm. mais guy gi bi ñu xam léegi dafa dijj mais dëgërul maanaam am na masse ci kaw mais maanaam suuf si. dara doole bi doole bi war a àttan masse ci kaw amu ko ci tànk yi mënul reculer deux pas te tërëful ñaareel bi moom mooy bu xeex bi jaxasoo rek day perte rëg-rëg ci loolu la ko juumloowee maanaam daf ko déplacer dóor ku daw dal ci kaw te tey am na loo xam ne nekkatul ci guy gi mooy maanaam guy gi nekkatul mbër mi nga xam ne da doon bëri di xeex te ay combat mépp daf koy lijjanti ci kaw lijjanti boobu noonu moom mooy lan day taxaw gérer komba xaar jamono jooju sa xol mooy nekk nii jamono jooju daan na entraîné ba wow koŋ. boo xoolee combat bi xam a Baldé. voilà xam nga guy gi bii nii ñuy gis nii ci image bi. Mhm. mooy guy gi bi daan dugg Iba Mar di dugg. Mhm. terrain gaal gi di mbapat. Mhm. guy gi boobu noonu ku mu ngi doon wax waxu gàllaaj certes mais doole. la doon bëriwaale. doole boobu noonu nag moom moo nekkatul ci moom tey ba mu demee jël loo xam ne waru koo jël. Mm-hmm. ba problème mu Michelin dugg ci. Mm-hmm. xam nga noonu tey maanaam li mu jël bu fekkonte ne sport bi rey na loolu noonu ci biir yaram mu kon tey du feeñ mais anabolisant daa am sport boo xam ne daf ko àndal. Mm-hmm. tey sa cardio bu dee baaxul du tas sa biir yaram. bu fekkente ni lekk bi nga war a lekk lekkoo ko. du tas sa yaram te loolu noonu maanaam dalay topp. ci sa age ci say yax bi ci say sidit loolu noonu yëpp def ci nekk. bu fekkente ne nag entraînement bu métti boobu. yaa ngi doon ma non si ñëw di nga ñëw. alaaji gën si si la ko jëlee. non mu ngi wax lu leer si yow la ko jëlee. <laughs> macha tey. Mhm. bu ma xoolee tey guy gi boobu noonu tey maanaam nit ñi ñu yaakaar ne tegle bu bëri muy tegle ay yére doole bi toll na noonu. Mhm. doole bi tollatul noonu. Mhm. te maanaam guy gi day mbër moo xam ne bëre bi tollul noonu. mënul bëre mën bëre boo xam ne jommal na booy yi war a bëreel yépp forum la am moom mooy forme mooy bu jàppee mënoo ci moom dara défenseur la ku nekk da am sa tactique bu bëre tey ci biir défense boobu noonu boo ko ci fekkee mënuloo ko jommal ci wàllu bëre parce que moom bu téye xam na tey naka lay def yow ba tëj sa bëre mhm. loolu yàlla may na ko mhm. mais tey day mbër moo xam ne xamul song xamul bëre di déplacé wu parce que tey jël na loo xam ne tey yaram bi mayatu ko tey mu am oyof boo xam ne mën na ko bëre tey guy gi bi bëreek Ama Baldé bu doon moo bëreek Ada kon pour man jafe-jafe làmb ji yëpp tey duñu yegg fii autant de temps ñu koy bëre pour man duñu yegg foofu noonu. Mhm. mais tey boo déggee coach Ada Fass na la buy yi ma gis nii boo dalee ci kawam. parce que mhm. jàngat nañu ko. Mhm. mbër bu taxawee ginnaaw gi tal baabu xamal ne doole new fa. ginnaaw bu tal c'est-à-dire. maanaam ginnaaw dafa bàyyi. lii nii. Ah, dara nekk fa. gisoo ci dara dëgg yëpp dafa yolom. mooy laaf yi quoi yi gars yi naan laaf léegi gi tey bu defee benn bu ko booy bi pardon day toog te Ada Fass assise bi am caay tànkam guy gi amu ko. ñaareel bi moom mooy arène nationale boo amul physique bu doy ci say tànk. waaw ah, parce que suufu géej la dafa dafa diis déplacement boo ko defee da ngay bàyyi. Hmm. ñun ñëpp dox nañu fa. ñun ñi nekkul ay mbër ñëpp xam xam nañ li nga xam ne baa moom mooy suuf su bëri li muy def ci mbër. Hmm. te entraînement bu fekkente ni gis nga salle bi. Hmm. mën nga faa liggéey say tànk bañ dëgër mais bés boo duggee ci suuf nga xam ne li lay weñ yi jox ci wàllu doole. bokkul ak suuf si ak suuf si. bëri tey amaana ñu ngi dem contact ci biir école yi di def ay saut mais maanaam niñ ko war a liggéeyee dafa doyul te tey Ada Fass boo xoolee ay tànkam bëri yi fi ne ci biir laam yëpp koo ci xool ay tànkam da leer na kii lii du liggéeyu saal. Mhm. léegi nag guy gi pour man fin carrière la nekk nii. Mhm. parce que tey làmb ji li nga xam ne moom waroon na ko def ci làmb def na ko ci làmb ba pare. donc li ma waroon def moom mooy constance mais comme ni ñuy wax rek dañoo dem ba benn niveau bàyyeeku. Mhm. nekk ay jaganooseur ni ko booy wax xam nga tey niveau bi nga xam ne jotoon nañu fa yegg ci làmb dañ fa yegg rek wéeru sës donc tey arène bi boo koy xool ñu respecte entraînement dëgg-dëgg boo ci génnee tafaatin génne Modou Lo ak Eumeu Sène ak Reug Reug pour man jeex nañu fi wala bokk benn benn nga ciy bëgg di lim donc tey bu mu la bett tey boo gisee dégg dégg suba ñoo ay ñaabu ndaw ay leneen ak leneen mhm. tey ki nga xam ne moom moo des ci biir génération bii nii di lëmbe mennum Zarko la ak Sa Thiès mhm. mën nañ amee lu ne ci làmb parce que ñu fonk nañ entraînement ba léegi teg nañu ko ci yoon te ñeme nañ ko aussi entraînement plus ngay màgg bu fekkent ni tey am nga résistance boobu noonu jom la rek jom kese la bu fekkente nag jom boobu noonu des na ci yow ba léegi boo duggee ci biir géew day feeñ mhm. guy gi mu mënoon bëre tey trent minutes di ko contact tey nekkatul guy gi bi nga xam moom la ñu gis mhm. bu waaxoo benn ñaar yaa gis muy xëxët donc yooyu noonu yëpp tey maanaam guy fi mu toll ci biir la moom mooy mbëru yi nga xam ne dañuy sóob mhm. ah bi ñëw xëwër xëwër ni yow bu amul fit rek da lay naawal. Mm-hmm. mais fi mu ne nii boo yëpp xam nañ faible am moom mooy lan. Mm-hmm. tànk yi dara desatu fa. Mm-hmm. donc foofu la ñuy appuyer. bu boobu noonu moom mooy lan déplacer ko indil ko xeexu jaxase fexe ba moom mu mën a arrière wala moom mu daw. donc boo ko déplacer rek maanaam bërëm jeex na foofu la toll donc mënatul défense mais booy dañ koy bëreloo. booy dañ koy bëreloo.